xibaar yi dañuy dem ba Kër Massar foofu ngeen xam ne démb nag am na ñaari doomu baay yoo xam ne ñàkk nañu seen bakkan gannaaw ba leen courant kon euh, jàppe foofe ca ndox ma ñu nekkoon ndoxu taw mi euh, fekk na kon ñoo ko doon génnee ca néeg ñu nekkoon ñu ngi ci ligne bi ak ka ngeen xam mooy Moussa Diatta moom waajur gu góor la ci kenn ka nga xam ne ni ñàkk na ci bakkan euh, papa ñu ngi lay nuyu di lay tislu di lay jaal di lay déglu rek nga gën a andi lu yaatu ci ni mbir yi demee. waaw papa ñu ngi lay nuyu yaa ngi ñuy dégg. waaw ñu ngi lay déglu nga wax ñu rek démb naka la mbir yi tëddee ba ñaar ñooñee nga xam ni euh, ñu leen jege loolee kenn ki sa doom la ni ñu faatoo. waaw noonu la demee démb daal dama liggéey woon par 11h ñu bi moo leen màcc c'est-à-dire euh, sama kër moo inondé woon ñaari néeg yi néeg yi ñoo amoon ay ndox depuis samedi ñu ngi ko léegi démb. même ñu utoon benn euh, machine comme euh, dañ ko doon ngacce ak euh, ay siwo léegi démb dañuy dañuy demoon am machine machine boo xam ne quartier bi yëpp presque moom moo leen ngacc moo leen moo leen manqué waaw machine électrique la dañ koy branché ci courant quoi donc bu ñu tiiree bu ñu tiiree salle bi pare ñu dem ci seen néeg foofu lay foofu la machine bi amee fii fii. Mwen anman pe kon, mwen anman yon sebi. Mwen anman mas, mwen anman mas, mwen anman mas, nyon miyari. waaw ñu lay masuwu ci tiis bi nga xam ni yéen a koy dund bu weesoo kon ñàkk bi ngeen ñàkk seeni doom ndox mi leen di sonal foofee ca Kër Massar jamono ji ndax mën nañu xam ah, fan ngeen toll ci mbir mi ak bu fekkee kilifa yi am na ñu ngeen ci jot a dégganteel mbala ñu ñëw foofee ca bërëb ba. waaw ñëw na ci démb si ngoon tey ñoo leen yóbbuwoon fële hôpital hôpital bu ñu yëmbal après tey ci suba leen lañuy yóbbu fële pour def autopsie ci hôpitalu hôpital kii CTO léegi fu mu ne nii ñoom la ñu dañu ne ñu ñu ngi ci kawam fii ak fii bon buñ buñ ko jot buñ leen jotee am ci quatorze heures dix-sept heures mën nañ leen lor. waa kay jërëjëf euh, Papa mu nekkoon kon kon Moussa jaata doon waajur bu góor ci kenn koo xam ni kon ñàkk na bakkanam démb foofee ca Kër Massar euh, gannaaw ba lañ courant kon jàppee ca ndoxu taw ga ñu nekkoon ñaari euh, doomu baay lañu comme ni mu ko waxee sànq ci tiis koo nga xam ni kon ñu ngi koy dund di leen di masuwaat di leen di jaalee Euh, ci turu groupe Futurs Médias kon ngeen gis ne ñi loru ci mbënd mi di ci ñàkk seen bakkan fan yii di yokku donte kilifa yi te am na kàddu yu ñu yëkkati woon euh, ci mbooleem matuwaay ak moytu yu ñu war a euh, def dañuy des ci taw mi du ñu sori lool Kër Massar dem ba Malika. foofee it ñeneen ñoo xam ni kon jafe-jafe li ñuy dund ak bassin ga nga xam it euh, jot naa kon fees ba seen kër ya jamono ji euh, ndox ma jël ko kenn ci euh, ña nga xam ne ay sinistre lañ maanaam loru ci ndox moomee lañuy ñuy teewlu ci micro Abdoulaye Anne. ndox bu ñu sonal te jógewul ci taw yàlla bi. dañ ñu koo teg parce que dañ doon defar fii bassin bi ñuy defar bassin bi ñu defar ko pour verser ñu ndox bi bi mu tawee première taw. ci la ci la ñu ubbi ñetti bassin yoo xam ne dañ ko synchroniser ak canal bi ñu ñëw di ñu ko tuural fii ba mu déborder ba nit ñëpp fi ñu toll nii habitation ñoom ñëpp génn nañ ñi génnul dañoo amul fu ñu jëm moo tax génnuñu. ñaata équipe ñoo génn. ñaata cent et quelques cent et quelques familles ñoo génn. parce que ñu ngi doon wax ay soixante quinze mais chaque jour am ku génn chaque jour am ku génn. léegi boo wax léegi lan ngeen di dund ak euh, mbir bi. coono coono bu metti parce que mënuñu génn mënuñu dem marché mënuñu dem boutique mënuñu dem fenn jaan yi moo ngi fi di tëb barki démb yeer rey nañ benn yeew yeew la ñu rey fii ci yoonu école bi fi ngeen jaar di ñëw yeew bu mag sax te yeew bu mi ngi fii ci biir dex bi jaan yi dañuy génn nii ñu leen di gis. loolu la ñuy dund fi ñu toll nii moom sonn nañ moom bu dee dëgg-dëgg lu ñu bëgg mooy état bi yëg ñu Macky Sall la ñuy waxal parce que ñun suñu maire xamoon na ni lii dinañu daal préfet xamoon na ni lii la dina dinañu dal parce que bi ñu demee bureau am loolu la ñu wax nee na bi mu ñëwee xool bassin bi newoon na bu tawee ndox mi dina déborder te ni ma ko waxee noonu la amee dafa taw première taw mu déborder ñun lii mosuñu ko am pendant des années ñoo ngi fi débordement bi mosu fi am. mosu fi am am na ñoo xam ne dañu leen abal kër am na ñoo xam ne dañu leen abal kër kenn du dëkk ci école. dañu leen ñii dañ leen loué ñi am astur dañ leen luye ñi amul fu ñu jëm ñu ngi seen biir kër toog seeni seen i doom waaw ngeen tey bu fekk ni ñëw ñu ngeen fas yéene xanaa li ñu defoon keroog parce que keroog tamit li ñu defoon mooy dañoo demoon pour tëji canal bi ñu jàpp ci suñuy doom yóbbu leen keroog police la ñu yendu longueur de journée benn kër toggul añ ñun ñëpp fa la ñu yendu ba ay 21 heures lañ koy doog a bàyyi te dañ koy répété waat ñu bàyyi parce que mënuñu dëkk ak ndox ak ay jaan u nekk ngook ak jafe-jafe ñoo ñu dëkk foofee ca Malika kon di joytu dellusiwaat ci tiis bi.